Ça tourne là. Est-ce qu'on peut démarrer? C'est très bien. On peut démarrer? Waaw. Euh, asalaamaaleykum euh,

nuyu également suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi ci biir kaso bi te dara yóbbuwu leen fa lu dul bokk bu ñu bokk ci benn kuréel walla ci benn parti politique te defuñu li war a tax ñu dugg ci kaso yi ñoo leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen wax ni lu metti yàggul di bàyyi xel bu baax a baax seeni njaboot di sant askanu Sénégal ci taxawaayam ak ci maturité am di leen gërëm yéen taskatu xibaar yi nga xam ne ñëw ngeen ci lim takku pour teewee ndaje mi mu nekk ndaje bu nga xam ne. lu am am solo la ci lakos maanaam lider allié du candidat Ousmane Sonko boo leen xoolee tey teewaay bi di ngeen xam ne liñ daan wax bi ñu nekkee université l'heure est grave ndaxte war nañ mën a wax ni tey jii crise préélectorale am na fii ci Sénégal en deux mille vingt-quatre liñ ko yóbbee nag du coobare acteur politique yi waaye ñi nga xam ne ñooy ëttu attekaay bu gën a kawe fii ci senegal ñu tuddee ko conseil constitutionnel moom moo ko sooxe ñuy massawu suñuy àndandoo ñu tuddee seeni bopp les candidats spoliés ñu bëgg leen wax ni gën a bees rek moo fi am waaye gën a métti amul ba tax na léegi nii dinaa jox sama jigéen mooy Maimouna Bousso mu ñëwaat ci jaar-jaar yi nga xam ne président Ousmane Sonko jaar na ci te ñu bëri daan ko seetaan parce que jàpp nañ ne seen du seeni affaire bu soxna Maymuna Bousso ñëwee ci loolu wax également njàngatam ci li xew actuellement dañuy jox Seydina Oumar Touré ñu gën koo xam ci capitaine Touré capitaine Touré lañ koy woowee ba léegi même bu dee moom jàpp na ni dañ ko woowee Seydina Oumar Touré parce que li taxoon mu nekk capitaine jaay nañ ko doole jëlee ko fa ñu nekkoo ko capitaine un jour capitaine toujours moom nag ci xam-xamam dina leen wax rëcc-rëcc ak manquement yi am ci décision bu cour suprême et conseil constitutionnel joxe te mu jëm ci Ousmane Sonko bu ko defee sénégalais dinañ gën a xam ci fan la conseil constitutionnel sukkandiku bene ku mel ni le leader de l'opposition au Sénégal warta bokk ci élection yi te tegu ko ci yoon buñ euh, capitaine Touré pare nag président biram Souleye bi nga xam ne mooy président groupe parlementaire Yewwi Askan Wi mais nekk également vice président PASTEF ñun xamuñu ex PASTEF nekk vice président PASTEF mooy ñëw nag joxe message bi nga xam ne mooy message wu lakos mu jëm ci acteurs politiques yi nga xam ne tey jii ñoo ngi ci ay jafe-jafe te ñoo ngi dëgmal élection bi nga xam ne moo gën a am solo Sénégal ñu war a mën a xam nan la ñuy liggéeyee pour que li ñu bëgg ak li askan wi bëgg ndaxte askan wi lenn rek la bëgg mooy élection am le 25 février 2024 bu ko defee moom dina joxe message wu ak kaddu lakos euh, mu tëj waxtaan bi je vais dire un petit mot en français parce que apparemment la presse étrangère est bien représenté après les salutations et nos remerciements pour votre présence massive à ce point de presse qui est éminemment important pour nous, dans la mesure où nous considérons que la situation est très délicate et comme on le disait déjà quand on était sur le campus, que l'heure est grave parce que sans doute on peut, et sans risque de se tromper, indiquer que nous sommes dans une crise préélectorale. Et cette crise préélectorale n'est pas le fait des acteurs politiques, mais c'est le fait de, de nos concitoyens qui ont été choisis pour faire partie de ceux qu'on appelle les sept sages qui ont transformé notre Conseil constitutionnel en un machin. De sorte que boku de candidats qui ont sué eau et pour trouver des parrainages, verser leur caution au niveau de la caisse de dépôt de consignation, se disent aujourd'hui spoliés par le Conseil constitutionnel. Nous estimons que cela n'est pas une nouveauté et c'est pourquoi à ma suite, la présidente Maïmouna Bousso viendra pour rappeler un certain nombre de faits qui jalonnent le parcours de Ousmane Sonko, faits d'injustice, de brimades et de voies de fait sur sa personne et sur son parti politique, pour que l'on comprenne en réalité que quand un, acteur politique est dans une situation, le mieux c'est que les gens s'entourent autour de lui pour quand même lui servir de bouclier et empêcher que le monstre continue son chemin. Elle fera également une analyse de la situation, mais à sa suite, Seydina Omar Touré, plus connu sous le nom de Capitaine Touré, il voudrait véritablement qu'on arrête de l'appeler Capitaine Touré, parce que ce qui a fait de lui capitaine, on l'a radié de cette station injustement, mais nous considérons que on est capitaine un jour, capitaine toujours. Il viendra, dans une analyse éclairée, montrer au peuple sénégalais et au monde entier les manquements et les failles et les incohérences que contient la décision du Conseil constitutionnel concernant le leader de l'opposition, le candidat du peuple sénégalais, à savoir le président Ousmane Sonko. À sa suite, Et pour terminer, le président Biram Souley Diop, président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, mais par ailleurs vice-président de PASTEF, vice-président de PASTEF viendra livrer le message de l'ACOS en direction du monde politique, particulièrement en direction des candidats, des véritables candidats de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se tromper. J'allais demander à ce que Birame Souleye clôture les prises de parole, mais on vient de me signaler que notre ami, notre euh, l'avocat, un des avocats de, du président Ousmane Sonko est là, à savoir Maître Massokhna Kane. Et si il le désire également, il pourra prendre la parole pour apporter quelques éclairages à la suite de ceux qui ont été choisis aujourd'hui comme les porte-parole du jour. Donc sans tarder, je vais laisser la parole à la présidente Maïmouna Bousso pour apporter son analyse et faire quelques rappels historiques. asalaamualeykum wa rahmatullah mbokk journaliste yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen présence di nuyu askanu Sénégal yépp di remercier itam ñi nga xam ne ñoo toog ci taabal bi yépp di nuyu maître Massokhna kan di wax ne il sera en tant que allié du président Ousmane Sonko et non en tant que qu'avocat pour que nit ñi mu leer ci seen bopp di ko jaajëfal bu baax ci taxawaay bi di wax rek ne mbokki Sénégal ndox du bàyyi yoonam te président Macky Sall defati na mëninam ndax fii mu jaarale tey le candidat le président Ousmane Sonko noonee la defoon 2019 ñaar ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay adversaire am à l'époque muy Khalifa Sall di Karim Wade di wax ne président Macky bi mu toogee ci réew mi ba léegi amul benn élection bu mu fi organisé bu légitime il a toujours violé la volonté populaire 2017 bi muy organiser élection législative dafa financer 47 listes de transhumants fantoches yoo xam ni léegi ñu ngi ci booram moom na leen dugg leen ci processus bi kenn ku nekk defi liste mu biaiser le jeu électoral yemul ci loolu ca loolu la sukkandiku ne léegi comme liste yi dañu bare nag juróom kese voté mu jóge ci loolu tàbbi ne coow li bare na ak liste yi dafa bare nañ dem ci parrainage senegale yi xeex ñu jàpp fi ñoom Guy Marius Sagna Dame mi ak keneen ak keneen waaye booba xëy na ñu bare xippeeguñu woon dañoo foogoon ni mbir mi mbiru ñenn ñi la du mbiru ñëpp tey ñëpp parrainage la ñuy jooy dinaa ci ñëwaat. 2022 ñu organiser élection législative mu daal di téq liste. titulaire bu opposition bi Yewwi Askan lépp ndax lan empêcher le candidat Ousmane Sonko mu am immunité parlementaire ndax booba mu ngi ci benn projet jëm ci kawam te xam na moom fi mu jëm waaye loolu itam damay wax kan moo ci nekkoon complice am une partie de l'opposition ak conseil constitutionnel mi nga xam ni ñoo ko validé woon waaye yemul ci loolu yamul ci loolu ndaxte dama tëb ndax 2019 dafa écarté ay adversaires politiques am wax naa ko léegi kan moo ko ci jàppale conseil constitutionnel ak ay jurisprudence yoo xam ni tey wëlbatiku nañu la ñu waxoon ay le rabat d'arrêt n'est pas suspensif maintenant le rabat d'arrêt est suspensif génne la ci carte ci carte électorale ay article L30 L24 lan lañ ci lan moo ko mbubu muy dialogue waaye yemul ci loolu ba tey 2022 2022 bi mu bloqué liste ba pare mu ñëw 2024 2024 mu organiser nag opération maa tey maa tey jël 260 candidatures yoo xamante ne caaxaan faaxe la sànni leen ci list bi toog ba mu neex ko mu def ci ay pré pré admis 93 pré admis waaye loolu yëpp benn kese moo ko ci amoon importance muy bi tax coow li am muy candidature bi nga xamante ne moo tax conseil constitutionnel. mënatul sax appliquer propre jurisprudence am yi mu appliqué woon ma Samba ak ma Demba ak ma Paate mais fii il faut mu invité wu inventé wu waat créer ay yu bees mooy conseil constitutionnel su demee ba moom war a wax ci li nga xam ne mooy processus électoral bi ñëw amul lu muy teg ci loxo sénégalais yi lu dul candidat bii ma tere woon barki démb ne ko du bokk ndaxte ay papieram dafa manqué nangu naa léegi ni papieram manqué wul ndax coobare administration la jox jox naa ko dëgg ci kaw administration jox ko dëgg ci kaw Sénat mais nag danaa dem làqarti leneen loo xamante ne dama ni samay prérogative la mais nag encore une fois dafa am ñu ko ci jàppale. fii nag dama bëgg ngeen remarqué bu baax kan moo jàppale waat conseil constitutionnel Henri Ciré Ba cour suprême ci lu conseil constitutionnel wax na ñoom ñoo ko yët dossier bi nga xam ni moo tax ñu war a téye le candidat Ousmane dossier boobu ñu wax ni dañ ko war a tëy ñu dossier diffamation Sénégal xam naa ni fii kenn waxu fi kenn lu mu xamul mais du tere ñuy taxaw ci mbir yi dossier bi ñu ne moom moo tax président Ousmane ko bokkul du dossier bu ñu àttee le 4 janvier dernièrement tey la ñaata 22 janvier le 4 janvier bi ñu àttee dossier boobu fekk na 25 jours plus tôt déposé nañu les dossiers au niveau du conseil constitutionnel fekk na plus de 68 jours avant processus électoral bi commencé na ndax depuis le 28 octobre la démarré le 28 octobre le processus électoral commencé le 4 janvier benn décision ñëw conseil constitutionnel nañu décision boobu am na capacité rétroactive ba tere candidature bu président Ousmane Sonko boobu dama ni mbokk yi conseil constitutionnel ay pyromane lañu Conseil constitutionnel, c'est le danger de ce pays. Ils ont perdu tout respect. Ils ont perdu toute crédibilité pour arbitrer cette, cette élection-là. ay la yow nag c'est pas la première fois wax naa leen ko ci seen processus 2017 ba léegi lu président Macky Sall bëgg a def ci seen loxo la koy daganalee avec la complicité d'une certaine opposition qui n'a pas compris ndaxte nag lii yëpp nu ko président Macky Sall di lewalee mooy ci ay dialogue la koy jaarale mooy ci ay ci ay waxtaan la koy lewalee ci la koy ci la koy teg ba nit ñi foog ne lu amal njëriñ njëriñ la mais au finish lenn kese lañ ci mën a retenir xam ngeen mooy lan mooy une volonté manifeste de violer le suffrage du peuple sénégalais une volonté manifeste d'orienter la destinée d'un peuple def nañu ko 2017 def ñu ko deux 2019 def ñu ko deux mille vingt 2022 tey ñu bëgg ñu ko def 2024 mbokk yi ñun est-ce que pare nañu est-ce que pare nañu tey bi may wax ak yéen du ñun ñëw choisir bi su tey bi tey le 22 janvier 2024 22 janvier 2023 un an jour pour jour lañ tase woon fële ca Kër Massar defoon li ñuy wax le pacte de Kër Massar avec le président Ousmane Sonko pacte boobu lan la wax mooy ñun ñëpp pare nañ pare nañu pour jàmmaarloog le régime du président Macky Sall pare nañu pour sécuriser le projet pare nañu pour libérer le Sénégal je pas dit pare nañu pour taal Sénégal attention pare nañu pour libérer le Sénégal dafa am lu mu laaj beaucoup de gens disent pare nañu pour dem élection waaye est-ce que réellement pare nañu ndax élection na ku ciy dem processus bu transparent moo la fa yóbbu élection ku ciy dem yor sa carte baax na carte yi moo wóor ñi ko jëleegul nañ ko jëli mais bu ñu jëlee carte yi bu ñu choisir candidat yi bu ñu choisir urne yi na fekk ne pare nañu pour sécuriser suñu ay vote na fekk ne pare nañu pour que suñu vote bii ñu décidé ni moom moo mën a libérer suñu ay prisonniers politiques kenn du ko foqati kenn du ko sàcc parce que mbokk yi ay sàcc la ñu amal affaire ay mafia la ñu amal affaire ay njumbalag la ñu amal affaire benn bande la amal affaire boo xamante ne ñoom ci seen biir kenn ku nekk dangay jox sa morom le relais te loolu nag jàngaluñ leen ko ci la ñu dund depuis le début léegi ndaxte nag gis nga set bande là tey ki ñuy wax le président Ousmane Sonko devant lui ils ont échoué sur tous les plans la DGE a échoué parce que daf ñu bañ a jox nos nos fiches le conseil constitutionnel a dit qu'ils avaient tort malgré qu'il n'a pas réparé ce tort sama euh, codeb ñi ci topp dinañ ko leeral am na dëgg ci kaw DGE am na dégg ci kaw Sénat mi waroon a yëkkati fiche am jox ko ko ndax conseil constitutionnel moom moo ko wax mais pourtant kenn réparé wu ko ci mais président Ousmane Sonko au delà de là dafa am dëgg ci accusation de viol yi nga xamante ne mujjiwul fenn accusation de jéem ko yàq daram jéem ko jéem ko persécuter mujjiwul fenn loolu yëpp tamit dañu dañu échoué ñoom ci loolu échoué ci contumax échoué ci ci ci radiation barki démb devant les juridictions du de Sabassi Faye et de Justion ils ont échoué surtout maintenant nag ils se rabattent sur notre volonté ak notre capacité ñun de choisir donc la balle est dans notre camp est-ce que pare nañ est-ce que ñun jaral nañ parce que nag pacte bi ñaar la woon kenn ki dafa def engagement ne def naa sama testament et j'irai jusqu'au bout kaso moo gën a tuuti ci li may dund moom mu ngi ci kaso bi ñun ñoo des ci beneen pacte bi ñun ñi nga xam ne ñoo war a tey taxaw pour génnee ko foofu génne foofu les mille et quelques détenus politique benn yoon kese moom moo am benn yoon kese la ñu am mooy ce chemin démocratique moom moo nekk suñu kanam parce que on a essayé les autres chemins la le combat démocratique, le combat pacifique. Mais on a enterré nos morts. Et jusqu'à présent, yàppa n'y a de, de, de, il n'y a pas de justice. Donc, lii moo fi des lii mooy suñu kanam nañ ci dem waaye nag buñ ciy dem dafa am lu ñu war a fagarloo dafa am lu ñu ci war a demee parce que bu dul loolu boo léegi yuuxu dina dina jib fi nga xamante ne euh, foogeewuñ ko woon. juste pour wax ni jamono ji ñu toll jante euh, président Ousmane Sonko li mu jaar ak li mu dund kenn dootu ko waxati. ndax sénégalais xale yi tuuti sax xam nañ ko ndax moom kaawam 2016 la commencé ñëpp xam nañu fu mu jaar ñëpp xam nañ persécution bu ñu def ci moom mais tey fi ñu toll nii il faut que les gens arrêtent de se tromper ce n'est plus le problème du du président Ousmane Sonko c'est le problème du Sénégal parce que ces élections ce ne sont pas des élections pour élire un président de la République non non c'est des élections pour en finir avec un régime pour en finir avec un système pour en finir avec des méthodes yu nga xam ni ça ne peut plus durer c'est ces méthodes qui ont amené le peuple sénégalais là où donc ku nekk dafa war a jàpp ni mbiru boppam la mais aussi c'est des élections pour ne pas que ce pays sombre pour ne pas que ce pays bascule parce que ñii ñëpp ma fi lim léegi DGE Sénat CDC Conseil constitutionnel Cour suprême kenn ku nekk ci ñoom tu as été complice des forfaitures un moment donné de l'histoire politique du Sénégal et les Sénégalais prennent ñii ñoo wax ne bu ñu jógee ci processus bi jàkkaarlook ñoom après les élections conseil constitutionnel bi moom moo wax ni moom mooy validé après cour suprême moom mooy taxaw ci kanamam ñu waat ban légitimité la conseil constitutionnel mun a am pour arbitrer ak pour taxaw ci kanamu processus bi DGE mi nga xam ni conseil constitutionnel ci boppam décrédibilité na ko décrédibilité na ko ban crédibilité la mën a am pour continuer ci processus bi question bi kenn ku nekk dañ ko koy delloo kenn ku nekk da ci am waree fam kenn ku nekk daf ci am responsabilité duma ma guddal wax bi parce que ñu war a jël parole dañu dañu bare li may tegee rek mooy di laaj ndax réew mi Dakar daf fay jeex wala ñun dañoo ñàkk ci fulla guñ koy jëndee ndaxte léeg-léeg dañuy jaawale nangu dogal gëm yàlla ak di nangu tegoo loo xamante ne yàlla tegu ko sa moroom moo la ko teg opposition bii ñu nekk nii lépp lu fi am boobu ba léegi am nañ ci responsabilité ndax heure bu ñu écarté kenn ci ñun ñeneen ñi foog ni mbir mi leer na pour ñoom damay inviter les uns et les autres à mettre le Sénégal devant et à comprendre que fi ñu jëm unité kese moom moo ñu fay jëlee fi ñu jëm ànd booloo fàtte suñu ay bopp kese moom moo ñu fay jëlee ndaxte nag fii ñu jëm bu ñu ko ratee Sénégal dinañu ko ameel dinañu ko ameel dinañu ko ameel àq askan wi dinañu jéppi parce que nag on a l'occasion d'en finir avec ce régime une bonne fois pour toutes pas pour nos petites personnes mais pour l'intérêt du Sénégal donc kenn ku nekk na ndax dafay outil Euh, garabu Dakar wala ndax dafay delluwaat làmb fitam xool taxawaay bu mu war a taxaw ci diggante bi nga xamante ne yàggatul dara mais diggante bu am solo la parce que lépp luñ fi wàcc rek bu soobee yàlla bu ëllëgee dinañ ko rëccoo ma def ci benn résumé bu ndaw rek en français juste pour dire que ce qui nous ramène ici c'est juste ce n'est pas de refaire le bilan de ce que le président Ousmane Sonko a subi comme injustice parce que il ne l'a pas subi à son nom propre il l'a subi au nom de tout un peuple et de tout un, tout un de tout un groupe de Sénégalais de changement. Le président Macky Sall est à la tête de ce pays depuis 2012. Mais nous savons tous qu'il n'a jamais à la tête de ce, de ce, de ce pouvoir. En 2017, il s'est arrangé pour qu'il y ait 47 listes. 47 listes qu'il a lui-même financées, et envoyées compétir. Au lendemain des élections de 2017, il a récupéré la plupart de ses listes. Maintenant, ce sont des transhumants qui sont avec lui. En 2019, il s'est arrangé avec la complicité du Conseil constitutionnel et d'une certaine juridiction, de certaines juridictions à écarter ses deux principaux adversaires politiques, à savoir l'ancien maire Khalifa Ababakar Sall et Karim Maïsawat. Il l'a fait au-dessus de tout le monde parce qu'il ne voulait pas compétir avec eux, parce qu'il voulait garder le pouvoir. un problème de Khalifa Sall et de Karim Wade. Fort heureusement, le candidat qui est aujourd'hui victime, depuis lors, l'a compris. Il n'a séché, il n'a cessé de, de, de, se, mettre à côté de toute l'opposition pour combattre les forfaitures que ces derniers ont, ont Parce qu'il il avait compris que ce n'était pas un problème de cela, mais un problème du président Maxal qui voulait rester au régime. Il a organisé ces élections présidentielles avec cinq candidats qu'il a par la suite récupérés à ses pour certains. Étant donné que le candidat, le président Ousmane Sonko est resté récalcitrant, résistant, n'a pas accepté aucune compromission, aucun compromis, aucun dialogue, parce qu'il fait toujours passer ces abominables euh, protocoles par des dialogues simulacres, que l'opinion internationale semble penser que c'est un, un, un, un, bon dialogueur, un homme de paix, un homme de, de, de, de réconciliation, qui tend la main à toute l'opposition. En réalité, à chaque lendemain de dialogue, il y a des deals et des soubassements politico-judiciaires qui s'en résultent. Ils s'arrangent toujours pour s'entendre avec une certaine partie de l'opposition, avec certains magistrats, pour arriver à faire valoir ces forfaitures. Au lendemain de 2019, l'opposition s'est quasiment disloquée. Le président Ousmane Sonko est resté debout, n'a pas accepté de faire du mburook soow comme certains l'ont fait n'a pas accepté de s'asseoir avec lui au lendemain de de cette période de Covid <coughs> qu'est-ce qu'il a fait il l'a attaqué calomnié accusé de viol poursuivi pourchassé violenté les archives sont là ça ne l'a pas suffi parce que euh, le président Macky Sall est de ces hommes qui euh, ne supportent pas en réalité euh, de voir meilleur ou plus debout ou plus droit ou plus résilient que lui. Il a oublié pourtant qu'en c'est le même peuple qui a accompagné le président Ousmane Sonko durant ces trois dernières années qu'il a apporté à la tête de la magistrature suprême. Il a persécuté le président Ousmane Sonko et au-delà de lui, il a été jusqu'à organiser des élections législatives sans la liste titulaire de l'opposition, qui a été charcutée avec la complicité d'une partie de l'opposition, la complicité de la Cour du Conseil Il s'est retrouvé majoritaire à l'Assemblée nationale, avec peine bien sûr. Mais ça n'a pas suffi. En 2024, le voilà, qui malgré le parrainage, malgré tout ce qui s'est passé, il se retrouve avec 260 candidatures, pour la plupart inconnues même du, du, du, du commun des Sénégalais. 93 qui passent le premier filtre, et maintenant 20 qui sont admis à participer. Mais 20 parmi lesquels ne figure pas le leader de l'opposition sénégalaise. Comment peut-on cautionner des élections sans le leader de l'opposition Nous apporterons certainement cette réponse-là parce que nous sommes convaincus que le leader de l'opposition est en prison, mais les Sénégalais, millions de Sénégalais qui ont leurs quatre électeurs prêts à voter, sont eux dans leur maison. Et ces votes-là sont bien réels et nous ferons le maximum pour que ces votes lui arrivent, et la personne qu'il décidera. Mais de quoi il s'agit aujourd'hui il s'agit aujourd'hui 22 janvier 2024 l'anniversaire jour pour jour du 22 janvier 2023 le jour du pacte de Keur Massar de répondre à cette question sommes-nous prêts sommes-nous prêts à sauver ce projet sommes-nous prêts à sauver ce pays sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout de ce combat contre ce régime sommes-nous prêts à aller aux élections présidentielles mais sommes-nous prêts à sécuriser nos votes parce que nous avons affaire à des de voleurs à une mafia organisée, à des gens qui sont prêts à tout. Ils ont tué nos frères, ils ont emprisonné nos sœurs, ils ont exilié nos amis. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul choix, c'est de gagner ces élections pour réparer toutes ces injustices et pour libérer le Sénégal. Mais pour ça, il faut que nous soyons prêts. Chacun de nous ne doit pas juste dire « je vais voter et rentrer chez moi ». Il faut que nous soyons prêts à défendre notre vote, à défendre notre pays. Sinon, sachons que ce sera peine perdue parce qu'eux n'hésiteront pas à refaire le même procédé pour voler ces élections comme à leur, à leur habitude. Je vous remercie. jërëjëf soxna Maymuna ñu ngi lay gërëm ci sa intervention bi ñu ñaan euh, capitaine Touré mu ñëw xam naa may mën a cité nga ñoo xam ne complice lañu waaye mënoon nga ci wax également FDS yi ndaxte ci mbir mi ñoom nañ ci sap te du seen cër. capitaine ce sont tes la parole. C'est toujours mes collègues. toujours mes collègues. Oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw mbokki Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen sant euh, surtout de di di gërëm président Dianté pour la confiance parce que je considère que la personne la mieux indiquée peut-être pour aborder ce sujet ce serait peut-être euh, l'honorable député Ayib Daffé wala Ngagne Demba Touré qui malheureusement est exilé qui est mieux placé pour aborder cette question parce que ñoom ñoo fi nekkoon depuis toujours ñoom ñoo porté combat bi depuis toujours vraiment donc c'est pour wax leen rek damay gërëm assistance bi ci confiance bi. aussi euh, analyse bi c'est pas l'analyse d'un spécialiste moi je suis juriste <laughs> mais je suis privatiste donc euh, pour ngeen comprendre si y a des incohérences dama buggoon juste soulever quelque incohérences par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel et boo leen xoolee. Euh, première liste rejet bi et le président Ousmane Sonko dafa bokk si ñu ñu njëkk rejeté lu tax ñu ne parce que moom dossier am matul lu tax matul parce que dafa amul quittance euh, caisse de dépôt et de consignation te ñun ñëpp gis nañu dans quelles condition la ko amul même juge yi ñoo rendraat encore une autre liste beneen euh, beneen décision de rejet bu ñu defee recours ba pare ñu wax ne que effectivement que le fait que le président son ko amul quittance du fautam fautu administration bi la donc son dossier est complet les mêmes juges alors que ñoom waxoon nañ ne au début que ils avaient examiné le dossier au fond cest à dans le fond c'est-à-dire xooloon nañu dossier bi yëpp donc ñoom bu ñuy njee xool au début gisuñu loolu donc il fa il a fallu ko ñu def recours ba pare boobu la ñu dem gis donc c'est extrêmement grave en fait mel ni candidature Euh, élection présidentielle euh, nga jël dossier euh, candidat nga traité que de manière aussi légère beneen aspect bi boo xoolee bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu en fait quand ils ont ils ont rejeté le dossier parce que le dossier n'est pas complet ñu ñëwaat beneen aspect ñu ne léegi que malgré que le dossier soit complet léegi le président Ousmane Sonko ba léegi mënul nekk candidat lu tax parce que ñoom jàpp nañ ne Ousmane ko dañu ko condamné te si condamnation boobu ñoom dañoo wax ne ko Cour suprême moo leen transmettre dossier bi est-ce que vous avez compris donc li day wane ne que ñun ñëpp lu ñu doon xalaat depuis toujours dëgg la boo xoolee man mii di wax ak yéen actuellement man j'ai un procès en diffamation depuis le mois de mars passé ba léegi mënuma am une seule décision même en première instance donc ñu accélérer un dossier en une année ñu jeexal ko ba pare par je ne sais pas la wala conseil constitutionnel ñu dem la même personne ñu ne lii moo tax ñu valider te ñu ne conseil ñu ne cour suprême si boppam moo leen yoon di dossier euh, euh, dossier bi te da ngay xam ne décision boobu mais bu bu ñu waxee ne am na benn décision bu ko condamné et génnee ko si si si si euh, basé ko si article nee nañ article trente waa L30 du code électoral lañ ko basé te boo xoolee article euh, L30 bi. L130 oui L130. non L30. L30 L30. article L30 waxul ne il est inéligible article l day wax ne que ne doit pas figurer sur les listes électorales te boo figurer wul si liste bi loolu pour loolu procédure la laajte il faut mu am une procédure administrative boo xam ne dañu fa war a jaar ñu notifier ko bu buggee mu attaquer décision bi mais en l'espèce on ne lui a pas permis. parce que le délai était réduit ba pare conseil constitutionnel dafa dem ñoom ñuy autosaisir directement c'est-à-dire ñoom débat yi ñuy def ci télé yi mooy partisan Macky Sall yi lu ñuy wax ci télé ñoom en fait wax sa xalaat lañu def dans une décision du conseil constitutionnel te loolu c'est extrêmement grave xam nga genre décision yi pour euh, mag ñi amul problème parce que ñoom pare nañu man tout le temps damay wax sénégalais yi nañuy raisonner en terme d'avenir man bu am 30 ans aujourd'hui man dinaa dund ba peut-être que sama doom mën mës a nekk candidat aux élections présidentielles su boobaa mun nañu sukkandiku si lu mel ni ñu génnee ko si ay liste sénégalais wul bu noonu la war a xalaatee moo tax damay woo sénégalais yi ma ne leen eh, il faut vous préparer xam nga euh, man j'étais gendarme et je ne suis pas un fouteur de trouble mais gis nga am na fu mbir di toll il faut se préparer gis nga lii c'est un problème de génération c'est un problème d'avenir pour ñu regle ko il faut que ñu pare gis nga lu mu leen jaral dañu ko war a jaral moi je considère bu fekkee ñoom gagné nañu élection yi gagné nañu ko y a pas de souci moi démocrate mais il faut que les sénégalais se préparent à sécuriser leur sécurité c'est-à-dire que ñoom ñu taxaw bu leen jaralee dee ñu dee y a pas bu ñu jaralee kaso ñu dem kaso dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko moom dëkk bi du pour benn nit voilà ça je vous le te loolu. Euh, bu fekkee ne jaralul Sénégalais xam nga yàlla nee na dëkk bu ne façon dirigeant bu mu mérité la koy jox bu fekkee ne ñun nangu nañu ne que nit ñi jaay ñu doole euh, teg ñu si coono injustice depuis des années ñu nangu ko y a pas de ko nangu man j'ai une capacité de résilience extraordinaire mais nag damay woo sénégalais yi wax leen ne il faut vous préparer il faut vous préparer je ne demande pas parce que ñu confisquer élection yi wala ñu imposer leen suñu volonté mais il faut vous préparer si quelqu'un veut vous imposer une volonté vous devez vous préparer à protéger la justice et le droit parce que tey bu fekkee boo gisee ni man ak ni ma toll ni aw ma doole may dox ci mbedd bi kenn dóoruma c'est parce que y a un y a une loi y a un règlement bu fekkee ni dem nañu ba loolu respecté wuñu ko amatul fi wax kii républicain la kii lii la mais on est obligé lu ñu yoon may ak yàlla loolu la ñu def doxee voilà moi je pense que c'est c'est important que ma préciser loolu euh, maa ngi jégalu xaw naa gudd tuuti. Merci capitaine. Merci capitaine. Je crois que les merci pour les éclairages. Euh, nous appelons euh, l'allié Massokhna pas lui dire maître, c'est <laughs> L'allié Sokhna Kane il va placer il va placer un mot et après euh, on donnera la parole euh, au président Birame Souleye pour livrer le message du des leaders alliés du candidat Ousmane bien. Alors, allez-y. Assalamu alaikum bonsoir. Je peux dire que je suis très fier de notre presse parce que c'est vraiment impressionnant. On voit que vous prenez vraiment votre métier au sérieux et que vous êtes toujours au front, comme nous les acteurs politiques. Ce n'est pas aujourd'hui Maître Massokhna Kane qui est devant vous, avocat, mais c'est Massokhna Kane, chef de parti, Union des forces patriotiques, qui est là devant vous aujourd'hui. et qui est membre de cette coalition. C'est important de le dire. Je ne vais pas reprendre ce que les uns et les autres ont déjà si bien dit, mais je veux juste faire quelques observations. Ce pays nous appartient à nous tous, ou plutôt appartient à nos enfants et à nos petits-enfants. qui sont en train de grandir. Et c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu aujourd'hui, avec ces élections. Les citoyens ont la possibilité, tous les cinq ans, de choisir ceux qui vont diriger ce pays, qui vont avoir le pouvoir de nomination, qui vont avoir l'argent du pays, qui vont décider de tout ce qui va se passer dans ce pays. C'est important de savoir qui est-ce qu'on va choisir. En tout état de cause, si on fait le bilan des cinq ou des dix dernières années, force est de reconnaître que c'est catastrophique pour la vie des populations. Dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Vous prenez euh, les denrées de première nécessité, elles sont beaucoup plus chères. De moins en moins, ça devient plus cher. L'eau, l'électricité, les soins médicaux, l'hospitalisation, je n'en parle pas, les soins médicaux, l'école, la justice, c'est partout le chaos, c'est partout la catastrophe. malgré tout ce qu'on vous dit comme bilan et tout ce qu'on vous montre comme image, réalisation. Feu Kebambaï disait déjà, il y a fort longtemps, que les Sénégalais étaient fatigués. Si on devait comparer avec maintenant, je crois que, euh, les Sénégalais ont la chance d'être euh, résilients et résistants. Parce qu'ils ont foi. ont foi en Dieu. Et ça, c'est une force. Croire est une force. Sénégalais croient. Mais croire ne veut pas dire baisser les bras. Il faut se battre. Il faut se battre pour pouvoir, il faut se battre pour savoir, il faut se battre pour avoir. C'est ça la lutte, c'est la grande réalité de la vie. Il faut se battre pour savoir, pour pouvoir et pour avoir. C'est important. Donc, les Sénégalais doivent se pour choisir leurs dirigeants. Or, ce qui se passe, la menace actuelle, c'est qu'il y a des dirigeants qui peuvent être choisis, que certains Sénégalais veulent choisir, et on les empêche de le faire en écartant les candidatures. C'est extrêmement grave. Et ce n'est pas fondé. Si on prend la dernière décision du Conseil constitutionnel, je ne reviens pas dessus, mais tout le monde sait que c'est une commande politique qui a été exécutée. En tout cas, pour ce qui concerne Ousmane Sonko, c'est une commande politique qui a été renouvelée, réitérée et enfin exécutée. Mais exécutée de façon pas très jolie. Parce que il y a eu deux étapes. Il y a eu la recevabilité des candidatures et il y a eu la validité des candidatures. lors de la, de la recevabilité des candidatures, le Conseil constitutionnel vous dit « je ne regarde pas ça parce que le dossier est incomplet. Je n'examine pas cette candidature. Pour moi, elle est irrecevable parce que c'est incomplet. » Et pourtant, quand il s'est agi de parler de la validité des candidatures, à la suite du recours qui a été exercé par Ousmane Sonko, le Conseil constitutionnel dit « Oui, je reconnais que le dossier d'Ousmane Sonko n'est pas complet. Oui, je reconnais que si le dossier n'est pas complet, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de son fait. Mais c'est le fait de la CDC et c'est le fait de la Direction générale des élections. Il fallait le dire plus tôt. l'honnêteté aurait été de le dire dans la première phase pour lui permettre d'exercer ses voies de recours. On l'a empêché de le faire. On a finalement reconnu ça. Mais plus grave, le Conseil constitutionnel dit, pour la candidature de Sonko, je reconnais que le dossier n'est pas complet de son fait, mais il n'y a pas que ça. Moi, je peux chercher. Mais ils se trahissent en disant Non, c'est la Cour suprême qui m'a transmis le jugement, l'arrêt de Mambaignan. Et je vois que dans cet arrêt, il est condamné définitivement à six mois d'emprisonnement, ce qui est faux, parce que la condamnation n'est pas définitive. Et ils disent, puisqu'il y a une peine de six mois qui a été définitivement prononcée, cela rend inéligible Ousmane Sonko. C'est une bêtise. C'est une bêtise qui a été faite volontairement. Et c'est ça qui consacre la commande politique qui a été exécutée. En tout cas, les Sénégalais doivent être déterminés, doivent être vigilants. Il s'agit de l'avenir de notre pays, de l'avenir de nos enfants. Nous ne sommes pas des étrangers ici. Si on devait partager ce pays en titre foncier, chacun de vous aurait un titre foncier. Vous êtes chez vous. Quand il se passe des choses anormales chez vous, Quand un malfaiteur rentre chez vous, vous avez vos enfants, vous avez vos biens, il y a des malfaiteurs qui rentrent chez vous, qui veulent voler, est-ce que vous voulez laisser faire Voilà la question qui doit se poser. En tout cas, nous, avons l'occasion de renouveler nos dirigeants. On a vu qu'il y a un, million à peu près de personnes qu'on dit ne pas figurer sur le fichier. Et il se trouve que ces personnes ont parrainé des gens qui sont opposés au pouvoir. Comment on a fait pour dire que ces 1 million de personnes ne sont pas dans le fichier Si cela devait continuer jusqu'aux élections, ce sera 1 million d'électeurs de moins pour les candidats de l'opposition. Donc voilà où il faut être très vigilant. Euh, je m'arrête là parce que je sais que tout a été dit. Euh, ci ci wolof li ma bëgg a wax ci lu gàtt rek hmm. mooy. man mi toog fii tey du avocat bi moo toog fii tey il faut que ça soit clair tey homme politique chef de partie moo fi toog parce que dafa jot ma jóg en tant que homme politique parce que dama am kàddu ci mbir mi tey dama bokk ci coalition bi donc loolu moo tax ma toog fi tey di wax ni réew mi citoyens yi dañu am tey occasion chaque juróomi at yu nekk ñu choisir ñi nga xam ñooy diriger réew mi pendant juróomi at yore xaalisu réew mi yore baatu nomination réew mi ñooy nommé ci poste yépp donc yore décision yépp ñooñu la ñu war a renouveler ñu leen di laaj ñi fi nekkoon depuis cinq ans depuis dix ans depuis douze ans won nañ ñu ay terre won nañu ay taleeg yu kenn xam mais ci dund askan wi ci yëg-yëgu askan wi ci seen dund tous les jours est-ce que sénégalais yi nekkuñu ci jafe-jafe nekkuñu ci métit nekkuñu ci jaaxle muy affaire u jàng muy affaire u faj muy affaire u lekk muy courant muy électricité yooyu yëpp dana ci ñëw ci pendant la campagne ci détail yi parce que courant bi dañu waxoon ci plan yeesal ni ñu en deux mille deux mille quinze deux mille vingt danañ jëndee courant entre soixante et quatre vingt francs le mètre le le kilowatt actuellement ñu ngi ci presque deux cent francs après plus de des centaines de milliards yu ñu investir ci plan yeesal et avant plan yeesal amoon na plan takkal amoon na plan suqali milliards yooyu yëpp fan la jaar. ñoom lañ ko war a laaj donc euh, sénégalais dañu war a am seen fulaax seen fayda ñu ngi ci seen biir réew newuñu doxandeem newuñu ci àll ba newuñu ci dëkku jàmbur seen dëkk lañu nekk xam ne buñ doon séddalee suuf si yéen ku ci nekk dina am titre foncier dina am wàll ci suuf si donc da ngeen am baat ci réew mi li mu war a doxi loo tax ngeen war a taxaw parce que conseil constitutionnel li mu fi woneegum baaxul dalul xet ndax dañu éliminer candidat yu bare yoo xam ne kenn warul leen woon éliminer parce que bu dee jàng bu dee seen bëgg réew ñoom wane nañu kon def nañ seen i preuve dañ leen waroon bàyyi ñu compétir parce que ci sénégalais yi am na ñoo xam ne ñi bëgg nañu voter pour ñooñu mais léegi xañ nañ leen te loolu conseil constitutionnel moo ko def conseil constitutionnel aussi moom moo éliminer Ousmane Sonko élimination bu ñaaw bu jubadi ndax liñ ko def mooy dafa amoon ñaari étape bu njëkk bi mooy euh, dossier candidature yi est-ce que dañ koy accepter recevabilité ñu ne bu sonk duñ ko xool parce que matul mais bi ñu ñëwee ci deuxième phase bi dañu ni dossier Sonko kat matul wante li tax mu manqué ay pièces du ci coobareem du ci jëfinam ñi ko def mooy CDC mooy direction générale des élections donc jox nañ ko raison mais bañ ko war a jox raison ci première phase bi la pour mu mën a def ay recours mu mën a def yenn opération yi ñu xañ ko loolu mais bi yoon li tax deuxième phase bi ñu ne candidature am c'est pas valable dañu wax ne cour suprême moo leen jox arrêt ñoom dañu mënoon nañu def seen enquête mais defuñu enquête dañu cour suprême moo leen transmettre arrêt boo xam ni bi dafay rejeter pourvoi bi mu defoon contre arewu mambay arewu mambay ñaa boobu ñëpp xam nañ dara baaxu ci en tout cas ku jàng tuuti droit defe naa picc yi naaw sax di team université cap faculté de droit xam nañ ni arrêt boobu baaxul dara jubu ci ni dans la forme ni dans le fond donc ñu ne cour suprême moo leen transmettre arrêt waaw cour suprême lu ci yoonam bu mu leen di transmettre arrêt benn ngo ñaareel bi ñu ne arrêt boobu dafa rejeter pour wu Ousmane Sonko e que donc condamnation six mois avec sursis c'est devenu définitif or loolu du dëgg parce que ñun déjà dugal nañu avocat yi avocat Ousmane Sonko yi dugal nañu rabat d'arrêt te loolu kenn attegu ko ñu ne condamnation définitive ba pare nag daal ni condamnation définitive boobu moo tax il est inéligible conseil constitutionnel waruñu tirer ay conclusion inéligibilité parce que Ousmane Sonko mi ngi ci liste yi dafa am ay jugement ay juge yu xam ne yu jub lañu ñoo xam ne ñoom ñoo wax nañ ko inscrit ñu est Ousmane Sonko actuellement mi ngi ci biir fichier bi maanaam Ousmane Sonko de ëllëg bu ko neexoon mu dem voté ji donc il est électeur et donc il est éligible ñoom bu ñu bu ñu ko buggoon opposé arrêt boobu si l'arrêt était définitif dañuy recommencer procédure de radiation bu ko defee bu ñu ko rajee notifier ku ko moom mu def recours am ainsi de suite defuñu ko conseil constitutionnel nag ñëpp xam nañ li mu fi daan def ci at ya passé yëpp moom la defaat maanaam ñu sant ko benn liggéey mu def ko loolu la ñu won te am nañ droit wax ko moo tax ñu ne constitutionnel euh, taxawaay bi mu taxaw te am na beneen taxawaay bu ko desee parce que moom moo war a arbitrer résultat yi donc xel dalul ci conseil constitutionnel surtout que am na lu mat un million électeurs yoo xam ni ñoom dañu joxe parrainage daan wote et ñu ne naw ñu ci liste bi bu ñu nawul ci liste bi fan nañ nekk te kooku ay informaticien wu conseil constitutionnel ñoo ko def fichier boobu kenn xamu ko ñooñu xëy na ëllëg bu ñu waree voté comme ñoom dañu parrainé woon opposition xëy na bu ëllëgee ñu ne leen du ngeen voté new leen ci kii bi parce que yenn a parrainé woon donc loolu la sénégalais ci la ñu war a taxaw ñu wax sénégalais ñu taxaw parce que xeex bi day soog a tàmbali pour ñu exercer seen droit pour participer tànn ñi nga xam ni ñooy jiite réew mi ëllëg ak ginnaaw ëllëg en tout cas pendant cinq ans voilà loolu laa ci bëggoon yokk rek euh, di leen sant di leen gërëm encore euh, toutes nos félicitations à la presse jërëjëf jërëjëf président président Massokhna léegi dañuy woo le président Birame Souleye du rek parce que c'est un vice-président de PASTEF du rek parce que c'est le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi mais sénégalais yëpp xam nañ ne Birame Souleye candidat la woon à l'élection présidentielle mu mujj euh, teg candidature am ci suuf ñëw bokk ci lakos di défendre la candidature d'Ousmane Sonko moo tax ñu tànn ko tey pour mu ñëw délivrer le message de lakos am na ay euh, ay point de presse yi nga xam ne dañ doon délivrer le message de Ousmane Sonko waaye tey jii ñun ñi nga xam ne ñooy allié Ousmane Sonko ñooy délivrer un message à l'opinion nationale et internationale mais également au monde politique au nom de l'ACOS et au nom de Ousmane Sonko. Biram, vous avez la parole. Bonsoir à tout le monde. Euh, comme il dit donc par euh, le président Dianté Euh, pour la modération. Donc nous sommes là pour délivrer un message. Euh, le message, euh, comme cela est demandé, il est d'abord un message de solidarité qui est exprimé à l'endroit de tous les citoyens bien nés qui ont exprimé la volonté et qui ont eu des projets à proposer aux Sénégalais et qui malheureusement par une raison politiquement organisée et structurée par l'État, ont vu leur dessein réduit à néant, fracassé contre les murs du champ politique du pouvoir et du fait, comme nous le savons tous, de hauts fonctionnaires et de magistrats. Donc, nous leur exprimons toute notre solidarité et nous allons appeler toutes ces personnes à s'unir pour le travail final. Euh, on, y, on y viendra tout de, tout de suite. Nous avons dit qu'ils ont été exclus de ce rendez-vous électoral par la DAF pour certains, pour le cas d'Ousmane Sonko, on connaît bien l'histoire avec euh, tonton Aïbou Ndafé, la DGE la Sénat et plus tard le Conseil constitutionnel. Chacun de ces organes de l'État, en ce qui concerne le mandat qui lui a été régulièrement confié par le peuple sénégalais, a totalement manqué à ses obligations. Et on nous apprend, après tout ce qui a été fait, qu'ils doivent rester en course pour le mois qui nous reste dans la proclamation des résultats dans la surveillance du vote. Il nous faut naturellement nous poser des questions sur la confiance qu'on devra accorder à quelqu'un qui a déjà trahi d'une certaine manière. Quelle confiance Est-ce qu'on va décider de leur donner une deuxième chance Ou est-ce qu'on va dire nous sommes fatalistes, on va accepter les coups de boutade qu'ils vont encore nous donner Voici les questions que nous sommes en train de nous, de nous, de nous poser. Et donc, ces organes doivent nous assurer la transparence du processus qui a été délégué Mais nous savons tous, comme cela a été dit, que nous allons vers des lendemains sombres. Parce que la volonté du hold-up électoral, la volonté du hold-up électronique, la volonté du hold-up géographique est structurée, bien organisée. Et les mécanismes sont bien verrouillés pour se dérouler en des temps, en des échéances et en des dates bien précises. Mais est-ce que nous allons regarder cette machine broyeuse de volonté populaire continuer et s'exprimer. Voilà pourquoi nous avions dit ici, dans cette salle, qu'il y a un moment où il faudra savoir qu'il y a l'humain, le temps et la responsabilité. Et la responsabilité, au-delà d'être la responsabilité simplement du citoyen, elle est une responsabilité collective parce que ce peuple-là, ce pays-là nous appartient à nous tous. Nous ne devons pas accepter qu'une catégorie, nous ne devons pas accepter qu'un conglomérat, nous ne devons sorganise pour kidnapper toute notre volonté populaire. Et voilà pourquoi nous demandons une union sacrée de toute l'opposition, de tout ceux qui ont été illégitimement, illégalement exclus, à s'organiser. Il s'agit, nous parlons des coalitions, qu'il s'agisse de courant politique qu'il s'agisse simplement des plateformes de la société civile et du peuple, du citoyen simplement, nous devons tous nous organiser pour d'abord exiger un accès total, global et transparent au fichier électoral. Nous demandons également la désignation d'un organe indépendant chargé de l'organisation des élections. Pour la bonne et simple raison que moi je fais une autre lecture encore de la décision du Conseil constitutionnel. Parce que le Conseil constitutionnel, dans sa décision, nous dit en même temps, il y a un coupable qui a causé un tort à Ousmane mais on ne désignera aucun responsable. La décision du Conseil constitutionnel nous dit oui le dossier d'Ousmane Sonko n'est pas complet mais c'est pas de sa faute c'est la faute à qui quand des personnes utilisent les sceaux de l'État quand des personnes utilisent le visage de l'État quand les personnes utilisent le temps de travail de l'État et les moyens de l'État pour porter atteinte à la volonté d'un citoyen ou la, la volonté de plusieurs citoyens le Conseil le constate nous le dit mais on n'en tire aucune conséquence mais on est en train de nous dire avec tout ce que nous avons appris dans les facultés de droit et de la responsabilité administrative, quelqu'un dans l'État peut causer une faute. Qu'on voit les visages de la responsabilité, mais qu'on dise qu'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de préjudice. On a causé un tort à Ousmane Sonko. Mais on nous dit ni la DGE, ni la Sénat ou des militants la l'APR sont, ni la DAF, aujourd'hui, ni le Conseil constitutionnel ne sont responsables. Et Ousmane Sonko, tout le projet qu'il a porté, Vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2011, c'était pour l'exclure de la responsabilité. On en arrive au moment où on dit « Ah non, non, non, ce chemin-là, il n'est pas bon. » On dit pour une diffamation supposée, entretenue, des procédures bâclées. Oui, on l'exclut. Après, il y a une erreur. Non, ce n'est pas sa responsabilité, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. On n'arrive pas à savoir qui c'est, personne responsable. Et comme ça, comme ça, Ousmane Sonko est exclu du processus. Donc, la responsabilité du et aujourd'hui de d'assurer lui-même la surveillance du vote. Il faut que le peuple assure la surveillance du vote. Nous l'avons dit. Et ce qui lui est demandé, ce qui lui est demandé, c'est de tout faire pour aller retirer les cartes. Parce qu'il y en a énormément encore qui dorment dans les préfectures et les sous-préfectures. Allons-y récupérer les cartes. Mais on ne se limitera pas à ça. Nous allons présenter un programme Nous allons discuter du programme, nous allons en débattre, mais le plus important, c'est que nous devons voter, mais surtout faire voter. Il nous faut voter et faire voter. Mais au-delà de ça encore, et pour le vote, il nous faut nous-mêmes surveiller le vote. Parce que si vous faites confiance à la Sénat, si vous faites confiance à la DAF, si vous faites même confiance au Conseil constitutionnel, on verra l'histoire se répéter parce qu'à une heure bien précise, Certains sortiront pour dire oui, un tel a remporté les élections, il a un pourcentage de tel, mais ça on connaît. Mais cette année-ci, nous n'allons pas accepter que cela se produise. Donc nous-mêmes, nous devons surveiller ce vote-là, parce que nous avons raté énormément de rendez-vous. Et je n'ose pas dire aujourd'hui que notre présent rendez-vous est le dernier rendez-vous avant le Rubicon, parce que nous avons déjà franchi le Rubicon. Et sachez pas de confort sans effort. Parce que nous tous savons que confort sans effort est une ruine malheureuse de l'intelligence. Nous sommes tous intelligents. Nous avons une volonté et cette volonté-là, nous allons l'exprimer nous-mêmes en étant les surveillants du vote, en étant les électeurs. Notre volonté, nous n'accepterons pas qu'elle soit, qu'elle Voilà pourquoi je terminerai en disant, en attendant tout ceci, En attendant tout ceci, il faut qu'ils sachent toutes leurs magouilles sont tombées. Ousmane Sonko ne devait pas être candidat, mais Bassirou Diomaye Faye en étant candidat, c'est Ousmane Sonko qui est candidat. Et donc, nous avons notre candidat. Nous avons notre programme, nous avons notre homme en Diomaye, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ben c'est Ousmane Sonko qui sera sur le terrain. C'est Diomaye Faye qui sera sur le terrain. si on ne les donne pas. Mais écoutez, qu'ils nous regardent faire parce que nous allons faire le taf pour eux. Nous sommes tous prêts, n'est-ce pas Nous ferons pour eux et nous reviendrons ici pour constater. Mais on ne, donne, ne dormira pas sous nos yi du gudd du bari du gudd di bari parce que li dañoo seetlu li fi xew weesuwul lenn lu dul ay nit tànn ne réew mi bu ñu waree jàkkaarloog askan bi ñoom ñooy tànn kan ñoo fay dem ñu wëlbatiku yi ay ñoo xam ne ñi amoon nañ éene jariñ senegal ci élection yi indi seen programme sénégalais yi àtte waaye ñoom ñu àttal seen bopp ñu bëgg a yëkkati ay kàddu ñi nga xamante ni ñoom lay wax les leaders alliés di candidat Ousmane Sonko ne ñu ngi wax ñooñu ñëpp ne leen xam nañ ne li am jaaduwut xam nañ li am ñun nanguwuñ ko rafetluwuñ ko donc dañuy bokk di masu ñëpp mais di wax ñëpp ne leen man day damay dem marché mënuñoo bokk oto waaye bis bu ñu ma xañee mën a dem mën a dem ñun ñëpp nañu bokk ànd ndax xam nañ fi ñu bëgg a jëm soppi réew mi dong lañu bëgg ñun ñëpp nañu ànd taxase wet taxañe wet yëkkatee wet dóor yàlla may ñu may may ñu lañu ñu yéene te na nga xam ne ñi indi lii weesuwul daaf weesuwul DGE weesuwul Sénat weesuwul conseil constitutionnel te conseil constitutionnel ak waa conseil euh, ak waa ak waa caisse dépôt de consignation bari démb conseil constitutionnel li mu wax daf ci am benn ay kàddu yu yu leer nañ yu mu yëkkati conseil constitutionnel dafa wax ni Ousmane Sonko de lii tax këyitam manqué amul lenn loo xam ne coobare boppam la xam nañ ñu ko def mais ñu ne amul kenn koo xam ne kii moom la ñuy yëkkati ne tuuma gi kii moo ko def nii lañ koy jubbantee nan la état di tooñe nit ñu ne loolu kenn mënu ko réparer nan la état di lore nit lor ay nit ci seen volonté ba ñu ne noppi amul kenn koo xam ne ki moo koy ngar rajo moo koy yenn pour ñu situer une responsabilité ça c'est un déni de justice lii mooy attekat bu weddi boppam ndax jël na la mu war a attee mu toog ca di doxal nit ay bëgg-bëggi boppam lii la wax ni bu ñu jógul ci lii fii ñu jëm du rafet ndax bu ñu wooloo ñii def lii te ñu nañu suba ñoom ñoo war a saytu élection yi ñu nañu suba ñoom ñoo war a proclamer suba sax ku ñu fal ci seen kanam ngay waate waaye ñooñu bu ñu leen doyee ñun doyuñu ñu donc dañoo wax ni fichier électoral bi nañ ko yëkkati teg ko ci loxo ñi nga xam ne bii ñoo nekk ci jeu ci jeu bi ci jongante bi ñu xam xoolal seen bopp saytul seen bopp benn. ñaareel bi ñu wax ni ñii fi ne te wane ni ñoom li ñu doon bañ mooy Ousmane Sonko nekk candidat ñu dàq leen seppi seen loxo tegal leen ne indil ñu ñoo xam ne ñi danañ ñu doy ba bu ñu nee diw gañ na kenn du histoire kenn du xool naan ah ñii day seen jëf. doy na set na rafet na am nañ ci ñoom yaakaar mais ñii fi nekk nii amuñu ci benn ñoom yaakaar amuñu ci ñoom benn respect ndax war nañ ñoom respecté wuñu le peuple sénégalais. moo tax gannaaw loolu dañuy wax le peuple sénégalais ne leen lépp nag ñu ngi ko teg ci responsabilité nit ku nekk la ngay jëf nanga nga wëlbatiku nangoo la nga cay góobee nga gar ko. gar boobu nag responsabilité boobu la ñuy wax ni le peuple na jóg assumé ko assumé ko mooy lan nañ dem jëli carte yi damay voté. li xew ci dëkk bi neexuma Ousmane Sonko dina gagné Bassirou Diomaye Faye dina gañe candidat wu Lacoste dina gagné on va changer te dox bi nga war a dox doxuloo ko wax bi nga war a wax waxuloo ko ñi nga war a seeti seeti woo leen bu ngoonu élection jotee bu kenn jooy moo tax ñu ne dem leen ngeen jëli carte yi nañ jëli carte yi nañu dem vote ji mais man xeeb naa sama vote man Birame Souleye xeeb naa sama vote moo tax dinaa vote waaye dinaa indi ay nit ñu vote danaa voté mais danaa indi ay nit ñu voté ba noppi danañu wëlbati ko saytul suñu bopp suñu vote ndax ñii fi ne doy ñu ci et nag saytul suñu bopp suñu vote mooy danañ bañ le vol le hold up technique mille un million parrain ñoo xam ne ay citoyen lañu am seen carte électeur ñu ne nekkuñ ci fichier bi maanaam ñooñu dañ leen a luxus dañoo réer fan lañ leen jëmee un million de électeurs ñu ngi taxawal ci dëkk bi xamuñu fu ñuy voté jee loolu mooy le vote le technique bi ñu nar a indi beneen c'est le vote géographique gis nañu ni ñuy yokkee élection nit yi ci yenn zone yi nga xam ni da ngay gis commune boo xam ne dañu ne dix mille habitants moo fa am ñu ne ñaata électeurs moo fa nekk ñu ne vingt cinq mille électeurs am na fi ku ngeen xàmmewul ci dëkk bii bu taxawee sa koñ ne vote voté man duma ni xàccul dóor kenn waaye fii doo fi voté ndax dëkkoo fi am nañ sañ-sañ wax ko dëgg loolu dëgg nañ taxaw ndax ñoo mën a moo tax ñuy woo coalition yëpp parti politique yëpp plateforme yëpp tous les citoyens ne leen ñëw leen ñu taxaw lii rendez la bu ñuy joxe lajj nañu ay rendez yu bare bare bari mais bii day bii day war nañu ko rate ndax li ci laxasu li ci ngar daajewu li ci nekk ci biir dafa bari te benn rek benn rek waroon na cee doy bu ñu ne am nañ ndam Ousmane ko fekk suñu bu ñu ne am nañ ndam Bassirou Diomaye fekk suñu bu buñ ne am nañ ndam prisonniers yi ci kaso bi yëpp fekk suñu bu buñ ne am nañ ndam Habib Sy Bassirou Diomaye ak keneen keneen keneen ñëw taxaw jàkkaarloog Ousmane Sonko loolu rek mbégte googu rek war na justifier tous les sacrifices ndax Ousmane Sonko lépp lu mu waroon a def pour le peuple lépp lu mu waroon a wax lépp lu mu waroon a muñ lépp lu mu waroon a indi ci xam-xam ak xel andi na ko teg na ko desalatuñu dara ñun ñoo ci des nañu suñu nañu nañu woddu nañu sol suñuy tubay nañ jël suñuy kaaga nañ jël suñuy li ñu war a jëfe taxaw xaar ndax jot na ma noppi salaamaaleykum wa rahmatullah voilà donc euh, ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax di fi yëkkati ndaje wi xam ne euh, ci ay fan yu néew également am na ay jéego yu rëy yoo xam ne war nañ ko doxal bu ko defee ñu ànd ceeg suñuy naataango yu nekk yeneen kuréel pour que ñu taxaw Euh, taxawal taxawu euh, askanu Sénégal pour que li mu bëgg mooy élection am le 25 février 2024 pour que li mu bëgg mooy soppite am le 25 février 2024 pour que lu mu bëgg mooy que système bu fi nekk ñu jëlee ko fi ñu indi anti système te anti système du lenn lu dul projet bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko woon Sénégalais yi te ñu ànd ceeg moom ñu nangu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah.